Momo, ábreme afuera, ¿no? Thank What? mu koy lancer après daf may def daf may def rotation

Fara bi yaa ngi fi mu ne ñu ngi nii ah yi ñu ngi euh, diggante tribunal ak euh, police. Euh, amaguñ accès nag amaguñ accès daal dugg ci biir salle bi nga xam ne moom la defee audience. on n'a pas encore cette autorisation d'entrée. dans la salle mais juste pour vous dire que ni euh, fii ñu ngi fii ci Ziguinchor te bépp yoon ba nga xam ne moom mooy jëm fële ci tribunal bi gars yi dañ kaa baare peut-être nag euh, bu 9 heures jotee dinañ ko ubbi mais daal loolu lañ fi loolu lañ fi jàppagul bépp yoon ba nga xam ne rek jëm na ci tribunal bi gars yi dañ kaa baare fi mu toll nii dañuy def benn tour wan leen li xew Thank you. ಈ ಅಂಗಲ್ kamera turere format format portable erreur technique la rek nañ ko ji moo réglé léegi léegi léegi. moo bon ñu ngi ci diggante commissariat bi ak euh, fii ci commissariat police commissariat waaw commissariat central moo nekk na la ci ginnaaw fii moom mooy prison mais benn remarque rek moo fi am moom mooy euh, bépp yoon wa nga xam ne dafa jëm dafa am accès bépp yoon ba nga xam ne eh, day dem tribunal dañ kaa baare dañ kaa barricade comme nu ñuy faral di gis Dakar tey loolu moo xew fii Ziguinchor képp ka nga xam ne yoro carte rek gars yi moom duñ la bàyyi nga dugg te en plus de cela tamit euh, salle bi kenn duggagu fa salle bi ñuy defee audience kenn duggu fa waaw bi ñuy defee audience kenn duggagu fa patriotes di nag euh, ils un peu partout waaw tous les coins qui mènent euh, au tribunal. Les patriotes sont présents. bawa dan idal dan idal ila hal mamai muy bi wonke para para mo ok mang lay rafa ko mu fawa daga ni mi daga ko ñu ci wa ko tam dag ko ñu ci ko